عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق وهجر عند الاتيان ومن كان ينسلم na bàyyi moo ñu gis mu moo ñu kool ci àllu harpaani bàkkaleen bàkkaleen marhaara gaa ngi koy jiin wanta waaja duñ ko wane mooy ruuxu labdaani yow yàlla ñoo ngi lay ñaan ci barke baaxu baraan nga may ñu bu ñuy xeem bañ dem di ñee paani ñuy toog bàllal ci barke xooxu baraan hidaayatan waqinan ñii sax kon ibrahim julli fa bahama won sa ko nga tampe na bayu yo yalla ni ngam ci xeet ci baaxu tijaani julli ci yoonam bi julli goo xam ne day wi de lay julli asal moo ñu xamaloon gaay tijaani baleen da nga ñu saawaay baleen da yedde saawaay ci kaasu saw ko lan naan tiijaani baleen da ngaañi saawaay baleen da yedd saawaay ci kaasu sawqu lañ naan ñun booru tiijaani kuusi ko hoosu la ay kasa yi ñuy naanee leer foofu la kendu bodu maye gaay tiijaani saytu siise ñoo ngi lay ñaanal ci baaxu barxaan foofu la dëkk yedd yërëm gaay tiijaani santana barhama tey sant Muhammad Fatou Diop ñu may yurel damay tuddalee gaay Tijaanin yàlla yàlla fay leen faj seen xaajo ci barkeb Seex yàlla yàlla jox ñu ñu day barke yow barxaama dollil ba tey ñii sant ngay dolli ñun dañ nañ ci naanaani dañ nañ ci naanaani ñun dañ nañ ci xaaraani fenn kaay leen ci si gannaan gi gaw leen ahlu tiijaani wilaana wallu si kaw tef ca wallum gee ka far ñii maa ngi tey ñooñu kenn dootu ngaan soppeb haadi bay bo soppewu kutbu rabbaani sëriñ Ibra Faal mii moo topp ci taawa baay sëriñ bay mu daami moo naan jooñu ñuy naani qad kaana lillahi ayatan muhakkamatun in kaana lillahi ayatan fa barhama حسبك الله لا شريك له يا الله يا حي يا لطيف يا الله بسم الإله ما يبقى جيما فين بأيتاف غير بقرأي كدان ويجول مك يا الله يا أحمد ابن موسى جاتك المبرهام ku dund day mel ni kam doon ne fa yàlla yàlla ñu jagleel xalilullahi def ko muy suñ boobu diina te doy nañu fa yàlla yàlla ko rangal ma daay to jox ko mantal islam te naan ko yaay ki ma doy ci diina yàlla baha ma ñas na dul haaj abdul ilahi kamal yaa nasrullahi fi diinillahi yàlla ilahi yaa qaadimu rasulullahi anna qadimul busri fi samaa'i yàlla li wàcc laahi ngeen xam kuy min ka yàllaahu fay dumbalaay bëggalim taalib ca awal fal wax bis ba ak weer wa ak leer mee yàllaahu ci yowmu larbaha weeru gàmmo leer ya baawaan mboolem jinne juuma naan ko nihma yàllaahu ñanaaw yeneen ja ak xayru xalqulaahi xaqan garab ba jaay naan yaa sammihu yàllaahu ruhi bi ne yaa nga ànd ak duusi gi ji duruut te jëm yëpp tanaan yaa fataahu yàllaahu ñu jëkk gëm fay du blaahi ñooñu lay bëgg lim ci jinne ak njuuma ak ca nit ña moo jëkk gëm ci xeeti jinne xamal ne moo jëkk ci njuuma yàllaahu ca nit ña bay sëriñ bay rek am ja moo jëkk gëm sa dix ba mooy taawu laahi yàllaahu maam abdu ñan mu di saadiq mooy docteuru lislaam Bilal ba mooy Ibra Fall mooy la fondation l'islam moo jox ci yàlla te mooy faanin fa yàllaahu li yéen naa ko alaaji xalluyin suufe ca àndawam la rawoon maaram ka yàllaahu mooy dencu bintu saxara xam na asal kanaani doy na mooy xaqay bar fa yàllaahu magam ja seydi mahmoud alaaji babacar ñas kilee ga xam a da seen la tuuy ñi ñoo jox ci yàllaahu kabiira doy na su baydo ndaxte moo niroo moom ci wàllu xam yàlla ak ciy jukko yàllaahu ki doon bun waliyu doo kookoo di bay hilimaan mooy ndaw li daan woppu mag ña wuur ne yàllaahu yàqul ndawam ci duniyaa xamul ku dul boroomam koppul ku dul min ka ay ndigal ya fa ahlu màkkata jaare Mustapha كرما لأهلك ويحيى جارا منك يلا ومنك هوتي نجول نغتي يلا بوير كدف لموي لولو ياي كسانكو يلا فتانا بوردا يقاتو جد دنگل دو نانغل لنا نور الله فن يلا نور يانكو نان دفل بودم نيوال تاكوغ لانكم نين ñoo lan ko duñ xëy julli muy woote yàlla xamoo ne day bëgg a dof looloo waral ko duñ gan réere li neexoo te nekkul réer na yàllaaw seytaane ñëw di lanka ñam def fa seen xol yi ku nekk buur te may far nuuru yàllaaw ñii xaati ñii gasi ñii dugg xalwa de ñaan ñii dem ca ceddo ya ngir far nuuru yàllaaw ñii xaati ñii gasi réer ñii dugg xalwa de eh! ñii dem ca ceddo ya ngir far nuuru yàllaaw bur yàlla rabbu li yàlla def ca asal mbindeef mu jog ña du askara ñëw ci yow mi di yàllaahu bur yàlla far na mboolem seeni pexe ya ca ñam ñii sànku ñii xalku ñii farfaatu yàllaahu bur yàlla yónni jibril mu wàcc jox ko ndigal sancal madinatu kon ngay ma fa yàllaahu ba min ka nee jóg leen ñu dem julli ji ca saam mbooloo ma dënnu suuf si yëngu yàllaahu min kàddu jiitu ba si kasa col da dopar araf da jaayu naan yaa mansuur yàllaahu bisab keroog ba ca saam la min ka dal di rango karaati njol ba yàllaahu ku bëgg a xam yàlla ak yónneen ko ak Seex Tijaan siyaara ji la ko wir da yàllaahu Sénégal ku bëgg a xam yàlla ak yónneen ko ak Seex Tijaan siyaara ji min ka waaw ku nga ci Seydi Barham tey may suufam ko fii kar ba jot ci yàlla dafa ni fa yàllaahu yara bi xëy ki porte yàllaahu mu ni ba dee yàlla xamul fu muy waaf yéen naan ni ba dee yàlla xamul fu muy waaf ku mën da gis yàlla yaay kii du yàlla ku mën da gis yàlla yaay kii du yàlla nañ nga ci Seydi Barham lu ñu digal ñu def loolu yawmal qiyaamati kon ñuy bég fa yàllaahu tamat xasiidatuna xaadir ba ji mayam fii tey julli ci laahu ak muxtaar yàllaahu su toon waxam suuna lii la way yi doon ñi ngee ñaan bur yàlla doon lu ñu ak hudde fa yàllaahu salli wa sallim alayhim sarmadan abada bi jaayi sayidina برام يلهاو صلي وسلم وسلم صبرا أبدا بجاه سيدنا برحم يلهاو عليك صلاة الله ثم السلام فبرأ